maktabatu Touba Daaru Saam waa kër Serigne Massamba Diop Saam nekk ci dëkk bu sell bi ci Touba Daaru Xuddoos ci yoon wi jëm Daarul Muxti waaw bàyyi Serigne lay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 mbokki Sénégal mbokki Afrique lu bees tàq judd na cim réew mi ñeel wàllu tabax mu di lan TRTP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 www.toubartp.com ak ci seen page Facebook entreprise Touba réalisation travaux publics moom rekk la lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekkee fii ci Touba Ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou lay kebe moo leen indil bépp dimension bu ngeen soxla ci wàllu karo wala lépp lu jëm ci wàllu bâtiment bu dee karosol waaw grépoli 40 40 Inde wala grépoli 60 60 Inde wala karosol 33 33 espagnol wala karosol Inde 30 ba ci caro faïence 25 40 espagnol caro faïence 25 37 inde caro faïence 20 30 inde ngir seeni décoration cuisine waaye ay lamp lisse yu taaru ngir seeni salon wala matériel salle de moo xam muy sanitaire lavabo siège anglaise premier choix ngeen mën a jokkoo ak gérant bii di Modou Abdoulaye Kébé ci 78 401 78 72 wala 77 320 71 91 boo ñëwee fii ci Touba 28 ubbil nañu leen fa bara boo xam ne lépp lu ngeen di fekk ndaam mën ngeen ko fee amee jàkkaarloo ak kër Serigne bay Sarr gérant bi di Ibra Kébé 76 869 57 wala 77 524 29 48 bàyyiwuñu dara moo xam muy karosol wala karo plainte sanitaire wala lépp lu jëm ci construction bâtiment moo xam muy électricité peinture plomberie ciment plâtre normalisé fer local waaw bàyyiwuñu dara mën ngeen a woote ci 77 513 99 94 société Touba xéewal karo ubbil nañu leen beneen place bu am solo fii ci Touba xayra jàkkaarloo ak Serigne Modou Bousso Dieng gérant bii di Jili Lay numéro téléphone am di 77 614 54 79 lépp lu am 28 wala ci Touba ndaam fii la fekk baax yéen ñi nekkee ca dakaar ubbi nañu leen place ca Parcelles Assainies unité 14 jàkkaarloo ak Soprime ci wetu pharmacie Mame Diarra gérant bii di Dame loo 77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 wala tabaski gi di fàttalante ak sunu bokk yépp lenn ci loo xam ne saabu ak jaamu yàlla dëgmal see moo xam muy jaamu yàlla ak farata lu mel ne xaj màkk gi wala weer woor weeru koor wi wala tabaski gi ci ñi nga xam ne ajiwuñu màkka xewu sunna dal la bëgg a wax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 ne la cax fu ko neex laal ci yaramam kooku mooy ku ñàkk ku yuru dara waaye ponkal mu ne fuut moom du fu ko neex laal ci o yaramam léeg sax buy sangum buy buy laal ndox am jafe-jafem njàmpe gi dem fépp ndax munta geesu koo xam ne daa gëm si Seydina Muusa lool te ku gëmoon yàlla ca jamono yooya mooy ñi gëmoon yonent yooya ba nit ñun ba ñun nit ñëwee bokk ak ñoom pas-pasu gëm yonent yooya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 lañ leboon bàyyi fi ndax gëmloo nañ ñëpp ne bala ngaa dem màkk dangaa war a fay say bor waroo amee bor te dem màkk moo dem julli ci si jàkka ja may am kepp donte nag fenn képp la mën a ame waaye jullit bi ko mën lañ wax waaye buñ la mayee paas it war ngaa mën a dem bu fekkee bor ba am na di digub ak di ak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 këyit ba ci en couleur waaye dañu fi wecciku carte de membre Touba ca kanam nooru daara ni di fi dagg itam ay rosi man ngeen a woote ci 77 233 24 39 wala wala lépp lu ngeen yittewoo ci jumtuwaayu jaamu yàlla fàggul nañu leen ko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 Gestoulma TRTP di Touba réalisation travaux publics waxal rek la nga bëgg ñu naataal la ko ci ab plan daal di la ko jëmmal xar kanamu tabax bi su àggeeb na muy mel bépp tabax bu way bëgg rek dana la ko liggéeyal ci ab plan boo xam ni dana baax lool yanju lool taaru lool te yéemu lool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 touba rtp point com ak ci seen page Facebook entreprise touba réalisation travaux publics moom rekk lépp lu baax rek ci biir dëkk bu sell bii di Touba la jëm si waaw société Touba xéewal karo firnde la ci kenn jéggaaneetul lu jëm ci wàllu karo rawatina luy taaral seeni dëkkuwaay société Touba xéewal karo nekkee fii ci Touba ndaam dend ak station Elton bi gérant bi di Modou lay kebe moo leen indil bépp dimension bu ngeen soxla ci wàllu karo wala lépp lu jëm ci wàllu bâtiment bu dee karosol waaw grépoli 40 40 Inde wala grépoli 60 60 Inde wala karosol 33 33 espagnol wala karosol Inde 30 ba ci caro faïence 25 40 espagnol caro faïence 25 37 inde caro faïence 20 30 inde ngir seeni décoration cuisine waaye ay lamp liste yu taaru ngir seeni salon wala matériel salle de moo xam muy sanitaire lavabo siège anglaise première choix ngeen mën a jokkoo ak gérant bii di Modou Abdoulaye Kébé ci 78 401 78 72 wala 77 320 71 91 boo ñëwee fii ci Touba 28 ubbil nañu leen fa barab boo xam ne lépp lu ngeen di fekk ndaam mën ngeen ko fee amee jàkkaarloo ak kër Serigne Mbaye Sarr gérant bi di Ibra Kébé 76 869 57 18 wala 77 524 29 48 bàyyiwuñu dara moo xam muy karosol wala carrefourance plainte sanitaire wala lépp lu jëm ci construction bâtiment moo xam muy électricité peinture plomberie ciment plâtre normalisé fer local waaw ñu dara. mën ngeen a woote ci 77 513 99 94 société Touba xéewal karo ubbil nañu leen beneen place bu am solo fii ci Touba xayra jàkkaarloo ak sëriñ Modou Bousso Dieng gérant bii di jiiri lay numéro téléphone am di 77 614 54 lépp lu am 28 wala ci Touba ndaam fii la fekk baax yéen ñi nekkee ca ndakaar ubbil nañu leen place ca Parcelles Assainies unité 14 jàkkaarloo ak Soprime ci wetu pharmacie Mame Diarra